moom mooy euh, député yi fare ci euh, député yi fare ci euh, Benno Bokk Yaakaar waaye tamit daal ci député yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci kujje gi rawatina nag la coalition donc Yewwi Askan Wi voilà mbokk yi mu mel ni mbir maa ngi bëgg sotti parce que maa bi jeex na ña ña fa nekkoon comme pour yi mbir mi pare nañ ci donc voilà ñu déglu tuuti ni ñuy def ba adopté yëf yi jàpp ni ñoom ñoo voté mbir mi ñu soxla woon 83 pour yëf yi mën a jàll mu mel ni victoire lañ ko jàppee ah victoire lañ ko jàppee député yi fare ci pouvoir bi voilà mais loo ci mënti dégg daal applaudissement yi tàccu yi. ñaari boor yëpp la donte ci booru Benno Bokk Yaakaar la ëppee mais gis nañ également de l' autre côté euh, opposition yi tàcc nañ ko voilà donc euh, victoire lañ ko jàppee jàppale ne tey jii nii daal motion de censure bi yeewi askan bi déposé woon euh, jàllul cinquante cinq députés ñoom ñoo ci ànd voilà donc lu ci des ñëpp voilà ànduñ donc am na ay cent députés ak yu teg ñoo xam ne vraiment ànduñ ci motion de censure boobu noonu voilà ñu ngi noonu di ko célébrer les députés de Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ne moom mooy le président de l' assemblée nationale Amadou Mame Diop mu ngi leen di jéem a calmer voilà pour xool vraiment naka lay mën a def pour mën a lever li nga xamante moom mooy la séance voilà ñu bàyyi leen ngeen jéem a vivre ces derniers instant la fii ci assemblée nationale. voilà donc euh, le public est très excité actuellement voilà comme ni ñu leen ko waxee sànq assemblée nationale nag moo demee noonu dafa am espace presse mais am na espace bu ne ci kaw tribune la loo xam ne tribune boo xam ne boo xoolee comme ni mu demoon altine bee passé Benno Bokk Yaakaar dañ fi ñëwoon notamment ak invité yu bëree bëree bëree bëri aj leen ci kaw tribune bi ñooñu nag jamono jii ñoom ñoo téye lii ngeen xam lii nga xamante ne moom mooy ambiance bi